Mhm. secretaire général bu daayira mu xadmu xidma bi mhm. yor jumaay Touba ak gestion wu armel yi nga xam ne moo nekk ci jumaa ji ak yi nekk ci Baqiya mën nga dellu siwaat euh, ci xew-xew bi muy euh, ñoo xam ne dañu ne dañu dugg ci armel yi di Baqiya profané ay euh, tomb yu nekk foofu waaw fi may tàmbalee mhm. mooy xew-xew bi mi ngi xew diggante ajjuma ak dimanche ajjuma bii passé ak dimanche ajjuma bii passé ci la ñu constaté ci vers treize heures une ci la ñu constaté benn waay boo xam ne dañ ko signalé mu nekk ci biir armeel yi di dagg lu mel ne aluminium bi am na ay leen ay barabi kilifa parce que bàq ya bi ñu ko ubbee suñ ci li mu faal joxe ndigalul nañ ko ubbi te tëj armeel yu njëkk wee ci 2014 euh, dafa euh, joxewaale woon ndigal ne bu fi kenn tabax ndax tabax yi day xatal euh, barab yi ak yu demee noonu mhm. waaye am na ay benn benn barabi kilifa yoo xam ne tabaxuñ ko mais dañuy jël lu mel ne ay barrière aluminium di ko fa def aluminium boobu nag lañ constaté ne am na luubalkat boo xam ne dafa dem pour dagg aluminium bi bokki aluminium yeeg yu mel noonu xëy na di ko jaayaat wala yu mel noonu léegi nag bi ñu ko signalé lañ ko jàpp ay vers treize heures hmm. waa bëccëg la treize heures euh, beneen bi itam dimanche la moom itam presque moom itam ay quatorze heures boobu itam euh, la la jàpp koo xam ne dafa dem muri mbaj bi nga xam ne moom lañ muuroon ci barabu yaayu si Abdou Karim mhm. soxna maam Awa Faye mhm. du barab bi lañ profandé profandé bu ko déggee njàpp ne sulli la waaye nekkul ne dañ koo sulli mhm. mais dañ ko caxat caxatee maanaam sàcc ay bagage yu fa nekkoon léegi nag bi ñu xoolee nag nombre barab yi ñu ko def ci armeel yi nga xam ne xëy ne ñoom dañ doon dagg di dem parce que dañuy tëb miir bi dugg ci biir war naa mat fukk ak juróom te nañ armi bi euh, ko yóbbu yàlla dogal na ñaar ñooñu ñëpp teg nañ leen loxo. Hmm. kenn ci gendarmerie ci boppam moo ko jàpp ndax dafa fekkoon ñoom ak ziar ay gendarmerie dañoo civilu euh, ñoom ñu gis ko nga ko looy def fii hmm. mu daw ñu dax ko jàpp ko hmm. keneen ci gardien bi nga xam ne mooy nekk ci ya moom itam moom moo ko teg loxo moo moo daw ba ba jàpp ko ba jàpp ko ñoom ñëpp teg nañ leen loxoy gendarmerie. Mhm. pour le moment nii may waxee ko daal loolu la information bi moom na leer ci ne du barab yi lañ sulli. Mhm. waaye dafa am ay jumtukaay fa nekk yoo xam ne moom la ñuy sàcc. di ko mhm. di ko jaay waat lu mel ne aluminium. wala ay mbaj yuñ ciy faral. donc benn euh, matuwaay lañ ciy jël pour kaaraange gi gën a mën a yemb foofee ca bàq ya. parce que bëccëg nga wax ne lañ ko sàcc waaw. waaw waaw matuwaay yooyu xam ngeen bàq yi bu mu ubbee ni ma ko waxee. daayira Muxaddamatul Xidma ñu teg ko ci loxoom. dafa ànd ak ndax ku nekk xam na ne gestion wu ay cimetière ci loxoy commune lay nekk ci ci dëkk yi kon mënuñu koo mënuñu koo yor te loxoy commune dugg ci ñu waxtaan ak ñoom ci ay mesures de sécurité yu fi jël ñu affecté fi ñaari agent yoo xamante ni ay gardien la kenn ki mooy garde bëccëg gi kenn ki di garde guddi gi donc itam ñu demandé woon na itam nañ fi def éclairage mais malheureusement éclairage bi ñu fi def mhm. doonul xëy na bu gën ndax ay solaire la te yu ci bëree bëri yàqu na kon loolu bokk na ci li waral yu mel noonu waaw bokk na ci li waral loolu mhm. donc ak itam yaatuwaayu armée bi ndax mhm. armée la boo xoolee un kilomètre nga armeel yoo xam ne guddee na kilomètre nag wax dëgg yàlla benn gardien mënul assurer sécurité bi. kon benn gardien moo fa nekk fi mu toll nii. gi. Hmm. guddi gi benn. Hmm. gis buntu bi gardien di taxaw hmm. oto yu mag yi nga xam ne oto transport la te mën nañoo xëy na yàq jaar ci kaw barab yeeg yu mel noonu leen di faral di tee. oto yu ndaw ne oto kilifa yi la ñuy bàyyi ñu dugg loolu koy seetlu. donc kon bëggoon nañ foofu nag ñu gën a bu baax a baax mesure de sécurité yi indi fa ay agent yu dool doy lu mel ne euh, ay ASP indi leen fi ñoo xamante danañ mën a gën a mën a sàmm kaaraange gi ak itam éclairage public bi it ñu yokk ko fexe ba am ay lamp yoo xamante ni yu yu yu courant lay doon. Hmm. yoo xam ne guddi gi dina mën a leer ba fu waay toll. Hmm. ñu mën koo séen def katu ñaawteef yëpp man mën a mën a mën a mën a mën a bañ a ragal. Hmm. taxawaay ñu ngi koy def mais dafa am loo xamante ni nag man manam aggu fa manam aggu fa euh, loxoy commune ci lay. Euh, wala loxoy kilifa yi loolu daal moom ñu ngi koy sàkk bu baax a baax ngir liggéey bi gën a mën a tege ci yoon. jërëjëf ñu ngi lay sant baax di la gërëm.